jërëjëf Myriam maa ngi lay fay. Eh. maa ngi lay fay. Abdou <laughs> Abdou kër gi daa am noo xam ne moom lay doxee. léegi ñun suñu plateau bi uh-huh. yow da ngay nuyu téléspectateur yi ba pare après nga ñëw ma la ñun suñu am nuyoo quoi. ah ni ngeen war a nuyoo. waaw kon baax na ba tey. Uh-huh. salaamaaleykum mbokki téléspectateur yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. ci uh-huh. ak seen sant. am nag dal ci kër gu mag. yëkkatil micro bi euh, kër gu mag gi nga xam ni moom mooy Sen TV. ah yàkkam ci woon lool ñëw dajeeg ñu yànji ñi ak Modou nuyoo yu bees yi. yu bees yi ñëw. <laughs> fii moom ñëw Abdou. yàgg nga may indil li moo fi am problème comme c'est de Miriam Miriam kaañ ko c'est que fii ñun rendez dañu am loo xam ne suñu yëfu bopp comme fii ay yëfi xale la ñun ay xale lañ. dañuy fo ah. ñëwal Miriam. ab yaa ngi kii ngi jël. yaa ngi bu fekkee moo ko moo ko non non mayat gisul jëlal maman bi moo ko <laughs> kaayaatal kaayaatal Myriam mais lii dëgg la ci waaw waaw mais da ngay ñëw ah, <laughs> gis ngeen rendez-vous nii lay demee saa su ne ah ñun suñu bopp ay xale lañ dañuy foo dañuy kaf dañuy ree Myriam ma bàyyi la nga dalal sa invité waaw donc voilà di wax di wax ne rek euh, moom lañ fi àndal encore une fois mu nekk président bu mag a mag Mbaye fan nga bëgg a dugg moom déjà waaw fi ma bëgg a dugg moom mooy xam nga jamono ji dafa yëngal réew mi mu baax génnee album bu doy waar boo xam ne mhm. titre yëpp neex affaire yi doy waar mhm. son ay ala dawme mhm. muy coup d'état waaw album bu coup d'état daal nga grand nga génne <laughs> inspiré pour nga def coup d'état ak lan mooy coup d'état macha allah jërëjëf waaw coup d'état de yaakaar naa mm-hmm. am na sax ñu ci euh, ñu ci ñu jot xam la ca biir mm-hmm. ah ndaxte bi mu génneeg léegi wax dëgg yàlla mi ngi wër a entête yi mi ñoo ngi def tamit tournée médiatique mm-hmm. macha allah li ñu ci bëgg wax rek mooy euh, euh, dëkk bi bëri na ay coup yaakaar naa ni ku nekk kenn umpul kenn ci ñun ah, diggante nit ak moroom ma ah, warante bi doorante dàll bi donc loolu moo tax nag ñu tànn ci benn di ko mettre en nag ñàkk mhm. ah pour euh, xam nga rek sunu way moom ginnaaw bu fekkee dafa yëngal xol yi ci mhm. bànneex tamit dañuy bëgg tamit di ci dëxëñ ay message yi nga xam ni mhm. buñ ko dégloo peut-être daanu gën a mën a defaraat sunu posture gën rafetal sunu doxin Sénégal jëm kanam mu mel ni coup d'état bi yow yaa ko dund sa soxna nga jël sa xarit <laughs> yabal ko pour mu jubóole la